100 pour cent Barcelone tey mooy xibaar yi catalan yi nu may nopp cant ak ngërëm ñeel na leen gis nañ commentaire yi di gis doxalin wi nga xam ne yéen a ngi koy fonk bile seen di Aladji Malick TV yàlla yàlla defal leen ndam defal leen jàmm ci match bi ngeen di siq ak goney colsonero yi ñu naan leen Atlético Madrid balaa may ñëw dëgg-dëgg ci match bi xibaar bu neex bi nga xam ne gaa yaa ngi ko doon jaaba jonge waaye man dama koy teelu lijjanti ko ba mu ni kocc koroj ma tegal leen ko ci taabal ji été bii nga xam ne moom lañ dëgmal da ngeen am gan gu màgg gan goo xam ne fi mu toll nii bu fekk goog Ansu Fati dana nu def ay tojaange muy ñëw Roberto moom mii di gone gi war naa ñëw Barcelone daanaka bu fay ñëw du leen dikkee sax daanaka dara lu dul ay mokkus yoo xam ne moom ngeen di coppati tegal ko ko ci taabal ji bu ko defee mu dabbar ñil leen attaque boo xam ni attaque de feu lay doon accord maanaam waxtaan ba déggoo tey tubaab daanaka bu fekkente ni wax naa ak yow ba déggoo ba sàmm kàddu loolee bokku ceeg ñu bari day doxal loolee nga xam ne moom la def kon am leen yaakaar ci Firmino ca Barcelone loolee dina am solo bu baax a baax Messi tamit ca Barcelone gaa yaa ngi koy xaar Messi ma ngay roñi kaagaa kii kaagaagaam ni ko gaa yi di waxee mais amewul noonu Messi musta jóg di dëkk fële nga xam ne mooy Barcelone kër gëm fa yoroon daanaka weekend bu nekk bu footballee ba pare noppalu gu muy noppalu day jël ak jet privé am eh, dem fële nga xam ni moo nekk eh, Barcelone coppati fa ab vacance am wala benn fan wala ñaari fan ya muy am loolee di am solo bu baax a baax kon na ko gars yi jàppee noonu Messi musta jóg di dëkk Barcelone donte tamit am na yéene dellu Barcelone loolee danañ ko gën a topp bu baax a baax match ci biir match yi ah, tey jii lay doon ah, ci diggante Barcelone ak équipe bi la nga xam ni moo nekk ah, Atlético Madrid match boobee nag dana am solo ndax Barcelone victoire fi mu toll nii gars yi dañ ko ko jaalaaj ndax Real a nga koy jonguru jonguru googee Real a nga koy def démb ba tey juróom poñ moo dox diggante ñaari club yi. kon loolee victoire impérative moom lañ laaj gone Barça